ni ñu dissoudre woon parti euh, Pastef est-ce que da ngay partager même avis et puis thèse yi mu teg gis na accusation yu doy waar yi nervi yi ñu doon recruter euh, yenn wax yi ñu doon wax ci kilifa yi et cetera et cetera donc même fait yi Antoine Diome doon toppee nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko ak parti Pastef même fait yooyu la relaté pour ñu dissoudre ci li nga xamante ni moom mooy euh, mooy APR est-ce que da ngay partager moom avis bi bon Pape Moussa déglu naa ko xam naa ko aussi yaakaar naa ñi ma xamee suñu waa kër laa ko xam. Mhm. moom nous avons de des rapports xam naa li mu wax aussi xam nga il faut ñu def attention aussi toujours xam nga journaliste journaliste la ay wax seen point de vue wax seen gis-gis wax seen bëgg-bëgg aussi mais dissolution parti dafa am nu partie parti nu ñu koy dissoudre partie du association de droit privé la. dafa am code yu ko tënk yoo xam ne bu neen parti bi def na dara ñu defee enquête mhm. parce que booy déposé parti da ngay dem dépp am foo ko déposé ministre de l'intérieur ñu defee enquête nga am ay statut am lépp respecter réglementation bi ñu mhm. autoriser ko nga nga nekk parti bi aussi bu demee ba faillir mhm. ay obligation ban constaté ko ba am lu ci am dañuy jël décret prononcé an kii bi prononcé annulation bi pour les mêmes même condition yi ñu ko yi ñu indi woon parti bi bu ko respecté wu statut yi comme li ma la wax violer obligation yeeg droit yi ko waroon yëpp def ko est-ce qu'on a dissoudre mhm. mais est-ce que on est arrivé à là mhm. c'est ça la c'est là que mbir mi àggagul na foofu mhm. wala bu amee ay éléments yu woon ne àgg na fa autorité yi war a def li def mais du loo xam ne da ngay xëy rek na nangam même bi ñu ko fi defee Pastef tamit coow lu bari la indi woon ñoom gars yi dañ ne woon jaarul yoon est-ce que ñoom nii ko defee duñ ne jaarul yoon la xewoon man naa xewaat te bu xewaatee day yées bu boobaa. parce que ce sera une répétition pour la démocratie. bu ñu xëyee dañuy dissoudre. a mooy li ma la wax dama ne la c'est-à-dire parti yi des ko war a organiser xoolal Sénégal imaginez tey. Mhm. États-Unis ñaari parti ñoo fa les républicains les démocrates ay conservateurs am na fa ñu xool fu ñu rangé France boo fa demee parti lu ñuy bari bari bari on doit revoir la démocratie dans les partis. Mhm. ñu revoir parti xool ko xoolaat ko pour xool. assainir milieu politique bi. pour mu bañ a bu bañ a mu bañ a gën mais il faut ñu def attention gis nga Ousmane Sonko surtout ak Diomaye dañoo mission bu garaaw gis nga gars ñu ci bëri. dañuy défendre affaire yi gëmuñu ko ay post poste la wut. positionné wu. parce que jeexul. jeexul gars yi dañuy dañuy wër <laughs> ñu ci bëri dañuy xeex bu leen joxul bu ci kanamee ñu ci commencé. sànq xeex sànq li bañ mooy. santage yi commencé santage ndax chroniqueur yi ci lañ bokk

gaa yi du fu ñu ne gaa yi ñu ci bari bu ci kanamee dañu démissionné ci ay plateau démissionné ci yenn rajo yi di xaar bu leen joxul deux mois trois mois ñu sànni xeer. Ah bon loolu li kay man ma c' est des assurances que je vous donne. bari na ñu bari ñu woon ci plateau danañ bàyyi yenn chaînes yi bàyyi yenn affaires yi commencé su leen joxul nag ñu commencé sànni xeer. Mhm, c'est-à-dire que gouvernement bi aussi. président mooy am fullaam tamit. Mhm. xool bu muy moytuwul. chantage bi day gën a bari Macky Sall des doon ko chantage. Mhm. Abdoulaye Wade des doon ko chantage. Mhm. moom mii mu ëpp ñu koy chantage. d'accord parce que gars yi ci bari dañoo xeex ci affaire bi. d'accord projet bi gars dañu bari dañ cee xeex de. te dañuy xaar seen wàll bu leen joxul ñu xeex. du nguur gi de. a tas parti. ko. ah waaw na bu fekkente ni dañuy mhm. analyser. tey waxee ak xam-xam. nañu xam ne nguur ga ak nguur gii c'est diamétralement opposé. quelle est la différence jusqu'à présent. de mooy différence bi. keneen ah, man man man gis naa ñu fal fi ko am licence. Mm-hmm. wuy ma ma ma wax la. fal ko def ko def ko poste boo xam ne si post poste qui est hiérarchie à ah, conseil des ministres. Bassirou bu mu juddoo ba léegi man Abdou Khadre. Bassirou Diomaye Diakhar Faye xalaatul goro. non je respecte Bassirou Diomaye Faye et Sonko en tant que ay Sénégalais mais dama ne ba ma juddoo ba léegi maa ngi doog a liir conseil des ministre mhm. ñu fal fi nit mu am bac plus trois ñu yóbbu ko ñu yóbbu ko niveau cadre cadre laax de. ma conseil des ministres bi weesu mën nga lire bu neexee communiqué bi gis naa koo xam. waaye licence professionnelle la loolu wóorul am loolu wóorul am mais moo dama ne dama ne dama ne ko def du yoon. ku ko def du yoon waaye nag suñu falee koo xamante ni niveau licence la am. kon sant yàlla. mais mais dama ne dama ne déedéet dama ne. conseil des ministres moom comme nga am yenn niveau yi avec war nga ko am. niveau ñu ngi koy soog am Sénégal. Mhm. ba gouvernement di gouvernement ba tey cadre yi ñu gis fii. kàngam yi ñu gis fii ci nguurug Macky Sall gisuñu ko ci woon bu ñu sëlam sénégalais te wax leen li ne nguur gii li tax ma ni la changement am na gisaguma Bassirou Diomaye Diakhar fay fal goroom gisaguma Bassirou Diomaye Diakhar Faye fal fereeram mhm. moo tax ma ne la différence am na te différence bi dafa doon lu palpable looy dund non mais mais mais yow yow gisaguñ ci Mansour Faye gisaguñ ci Aliou Sall am na ñoo xam ne duñ xam nga maa ngi ñëw am na ñoo am na ñoo xam ne c'est-à-dire man man loolu posé wu man sa doom am niveau am am xam-xam ñu fal ko sax man loolu posé wu ma problème man c'est pas ce problème là man nekkuma ci débat boobu xam nga débat bi fan la nekk xam nga débat bi fan la am loo wax nga am loo waxoon wala woon mhm. nga jëf lu xaw a loolu wala lu ko mel. foofu la problème bi ne. man waxumaay fal ko wala jagal laa d'accord ci vidéo bi ne nii génnee nañu ko. Mhm. mooy bu ñu mës a taxaw naan ñu ngi dissoudre APR. Mhm. booy dissoudre APR day fekk nga dissoudre loo xamante ne dara des na fa. Mhm. mais APR dara desatu fa moom moo dissoudreal boppam. parti boo xamante ne tey jii nii ki nga xamante ne moom moo di Alioune Sall di frère Macky Sall génn na ca parti ba. parti boo xamante ne Amadou Ba mi nekkoon seen candidat à l'élection présidentielle génn na fa. parti boo xamante ne ministre bi yoroon wàllum enseignement di Cheikh Oumar Anne génn na fa. Mhm. parti boo xamante ne nii Coulibaly euh, génn na fa. Mhm. ministre Coulibaly génn na fa. Mhm. dama ne parti boobu lan moo ca des. lan moo tax muy toog di demander à ce gouvernement bi di dissoudre parti bi. su boobaa rupture ba ñu doon wax rupture amul. su boobaa même système. même comportement mooy ñëwaat ci nguuru mm-hmm. sir Diomaye Diakhar fay bi te soxlawuñu loolu dafa mm-hmm. am ay urgence yoo xamante ne moom la ñu soxla mm-hmm. que toog naan ñoo ngi di dissoudre parti APR parti APR ku ko tas mu tas ku ko tasul mu tas parce que ànd bu yàlla taxul la woon ku ci nekk da nga amoon say intérêt personnel yoo doon jiital intérêt askan wi ñoru leen gëmuñu ko woon bëgguñu ko loolu mooy réalité gis naa ni nag changement man moo ngi am parce que gisaguma ci Alioune Sall ci gouvernement bi gisaguma ci Mansour fay ci gouvernement bi mm. parce que Diomaye Diakhar fay doxaleegul noonu indiwul mm. goroom indi rakkam mm. li ñu gis xam nga lan la mooy ministre boo xamante ne fal nañu ko mu nekk ministre mm-hmm. doomam nekkat ci li nga xamante ne nii moom moo di ci direction yi mm-hmm. te compétence moo ko fa yóbbu xam nga euh, Ouzin wax kenn du ko raay wax kenn du ko yërëm. Mhm. changement am na nañu ñaan changement bi doon loo xamante ni luy continuer la. nguuru Macky Sall gi gisoon nañ ci ñoo xamante ne jànguñu xaala wala kasiiran mhm. ñu dugal leen ci ci gouvernement. d'accord dix minutes moo ñu dese li ñu dese ci waxtu daanaka jeex na euh, benn point bu mujj bi ñuy waxtaanee euh, xalifa sàll ñëwaat na wala wax na ay bëgg-bëggam ginnaaw bu mu toogee ci diir bu yàgg kenn dégg ko Khalifa Ababacar Sall voilà il la waaw après quatre mm-hmm. mois. Mm-hmm. après la présidentielle. Khalifa Sall nag jël na benn décision de taille. Mm-hmm. mais day maintenir position dans l'opposition. ba pare le leader de Taxawu Sénégal. Euh, mi ngi euh, pour la création d'une coalition politique en vue des élections législatives waaye nag euh, Ousin Ndiaye. loor bi muy rencontre bi nga xamante ni woo sàkku woon na ko dajeek